Euh, Kouthia ñu ngi lay nuyu. Euh, ah ñu jot information léegi ñu ne ñu Kouthia dafay génn tey tey nii nii nii hôpital. waaw. Mhm, euh, maa ngi sant yàlla avant tout di remercier le bon Dieu. Mhm. et son prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et tous les yi nga xam ne mhm. ak sama famille. ak sama donc euh, yàlla def na tey euh, maa ngi nii euh, juste di génn fii ci hôpital bi. Mhm. donc may remercier nag ñëpp nag macha allah alhamdulilah rabbil alamin. Mhm. Mhm. d'accord ñu gis benn élan de solidarité bu graaw bu am. Uh, bi nit ñi yëgee ne Kouthia feebar na Kouthia ngi ci cas grave gars yi commentaire yi ñëpp di la ñaanal uh, loolu ba nga ko yëgee ban sentiment nga ci am. yàlla ak yonent bi dañuy def nañ seen devoir. Mhm. mais Sénégalais yi def nañ seen devoir. Mhm. may sant yàlla bu baax parce que lii lépp bi ma bi ma sama hôpital la la hôpital la ma fekk. Mhm. réaction Sénégalais yi. li ma ci gën a neex notre Kouthia national. notre patrimoine notre patrimoine national. notre Kouthia national prier pour lui ñëpp di ñaan Facebook yi internet ñëpp di ñaan. mais loolu ab sant la. loolu loolu kenn ñaanu ko yàlla mais maanaam sondage la boo xam ne tey euh, euh, ci feebar bi nga mënoon xam ci la ci ci la toll Sénégalais yi. te mhm, mhm. pleuré dama tëdd fi ma toog ma jooy. Mhm. parce que man foog na damay dem nii rek dans le flanc. foog naa man damay dem nii rek. ñi ko bëgg mooy ñi may defante ñu waa bi mais xaw moon ne am naa accès a quatre vingt dix neuf pour cent o biir xolu Sénégalais yi nekk Sénégal ak ci diaspora bi. tey. li may def moom mooy sant yàlla sant sénégalais yi. Mhm. ndax ñëpp ñaanal lañ ma chrétien musulman athée. Mhm. murit bi tous les tarixa ko xalaat ku nekkul ci dara xale yu ndaw yi paa yi maire yi tout le monde tous les sénégalais même qui sont pas sénégalais les étrangers qui vivent parmi nous les guinéens ñi nga xam ne dañuy am am am kucca ñëpp ma ñaanal loolu damay sant yàlla. Mm-hmm. damay sant yàlla xadi damay sant yàlla damay santaat yàlla damay delluwaat di sant yàlla. Mm-hmm. d'accord la question mooy Kouthia da nga corona woon wala corona woo. Euh, xadi feebar la boo xam ne. Mm-hmm. Euh, je pense que ne comme que feebar contagieuse la. dafay wàllee. liñ ma testé ma nangu ndogalu yàlla. ndax buñ la testé nga positif mooy waa feebar bi jàpp na la. boo ñu la mooy feebar bi jàpp na. comme que j'étais positif kay mooy maanaam feebar bi nekk na ci man. Mm-hmm. nekkoon na ci man waaw. d' accord léegi yow fan fan nga jëlee feebar bi wala yow xamoo ci cas communautaire yi la ñu. boole woon non c' est pas c' est pas important pour moi wax ne fan laa jëlee feebar bi. Mm-hmm. parce que tu sais bien avant y avait un de de nos collègues qui s' appelait Ba qui s' appelle Bakar Bakary Cissé. Mm-hmm. bi ko presque commencé engagé. di bind naan fii ma ne leen c' est pas important ñu xam kan moo feebar TFM ñu naan TFM am na am nañu cas. mais dama génn def benn vidéo mhm. ne leen c'est pas important ñu xam la personne bi am TFM feebar bi nañu ñaanal ba pare les journalistes ni dañu am solidarité la presse mhm. yoo xam ne il faut nga def humanité nit ki nga sóoraale ko parce que il dafa am famille am lépp mhm. te feebar bi xëy na sénégalais yi comprendre ñu ko socialement mën nga ko am ñu génn di la daw kontan kon dafa war a am loo xam ne dañ ko war a sutural suñu bopp suñu biir c'est ça mais man euh, je pense que ne Euh, lu li ma dal. Mhm. Euh, dal ay quelques membres du groupe euh, Futurs Médias du ma wax maa ko fa indi du ma ne dañ ma ko fa wàll du ma ko jiw kenn dama naan dogalu yàlla la dogalu yàlla la. Mhm. cas communautaire importé exporté cas rencontré yooyu yëpp ñu ci dugg. mais testé nañ ma moom mu positif maa ngi sant yàlla parce que tamit xam yi mhm. il faut xam ne. parmi les quatorze millions sénégalais yàlla moo jëlee ne Kouthia bi ci dugg. dina am tur bu tudd Kouthia dina dugg ci xolay sénégalais yi dinañ ko bëgg. Mhm, mhm. ma sant ci yàlla waaw léegi yàlla ëllëg ne quatorze millions sénégalais. te eh, Kouthia dina bokk ci ñi corona ñëpp dinañ ko yëg kon damay santaat yàlla pourquoi man mu nekk bu positif yàlla bu négatif bi may daw. Mhm. d' accord léegi euh, ñu jékki-jékki saay tamit dégg ne Kouthia mi ngi ci cas grave parce que dafa am problème cardiaque ak euh, problème euh, diabète ñu ne yaa ngi en réanimation est-ce que information boobu tam amoon na. mais des fois damay comprendre la presse euh, dañuy bind des yoo xam ne c'est juste pour euh, mettre en danger nit ki il faut ñu sóoraale tamit nit ki ak ah, ki xale yi dama nekk ci préparation yaa ngi dégg ay fàttewoo dara yooyu mm-hmm, mm-hmm. est-ce que mën naa la reprendre dans cinq minutes ma dugg ci oto nga xam ne damay gën a am euh, autonomie autonomie que ah waaw am tamit sama beneen xarit Serigne Fall Mbacké docteur mm-hmm. moom tamit il veille à moi mënuma lim di bàyyi mais dama la bëgg a xamal ne chrétien musulman athée mm. sénégalais lambda taalibe xale bu ndaw daf nañ ma benn vocal boo xam ne benn xale bu ndaw boo xam ne dafa ne papa day defal Kouthia dafa seetal papa yàlla na Kouthia tane dina tane de mm-hmm. xale bu am quatre ans cinq ans waa ki nga xam ne da doon dindi stress nit ñi docteur sénégalais yi di dix-huit heures à dix-neuf heures feebaree dinañ am lu leen jaaxal moo tax yàlla dellu si waat na ma damay sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin Fatick euh, euh, Khady Faye. day boole ñaar ñaar ñaar yoo xam ne euh, da bi traité bi. d' accord donc donc Fatick Fatick maa moo nekkoon ci yow mais est ce que yaa ngi woon ci ci grave yi. non non mosuma nekk ci cas grave mosuma nekk ci cas maa ngi sant yàlla bu baax parce que bu mu nekkoon ci cas grave yaakaar naa ne kon lii yóbbu ñooñu du ma fi bàyyi. mais nee naa la ñaanu Sénégalais yi. Mm. ñaanu Sénégalais yi ñaanu samay waajur ñaanu euh, euh, euh, toute la population sénégalaise ak ñi nekk ci diaspora bi. Euh, tax na même bu ma nekkoon ci cas grave yi yàlla dimbali na dégravé cas yooyu <laughs> sama cas mhm. yàlla dégravé na sama parce que euh, vraiment euh, lii mooy Sénégal Sénégal lii mooy dëkku Sénégal lii mooy waxtaan mooy rumeur mooy coow mais loolu yëpp sant yàlla la parce que am na foo xam ne liñ ma dindal noonu ay Kouthia mu ngi ci cas grave yi moo taxoon ba Sénégalais ñoom tamit ñoom ñëpp ñu tiit tiitaange boobu moo tax ñoom ñëpp ñu daal di dajaloo nekk benn def benn say pour pour pour pour pour ñaanal ma bu fekkoon dañ ko jël à la légère peut-être nit ñi dañ ko jël à parce que am naa fi ay ne dañ fi corona euh, te peut-être dañ ko jël kon euh, kon euh, Sénégalais lambda mais fi ñuy pour affaire bi petit à petit dafa cardiaque dafa ci jàmm na cas grave yi est-ce yooyu yëpp tax ñu ngi daa demee bàyyi xel te loolu dama ciy sant yàlla bu baax euh, ñu ko bind nag dama leen di euh, sant parce que ñoom ñoo tax peut-être affaire bi am ampleur boo xam ne egg na foo xam ne sur le plan national international sama famille euh, sa kilifa diine yi Sénégalais lambda yi ñëpp daal damay d'accord léegi waa groupe Futur Media ban taxawaay lañ amoon ci feebar bi. non non non taxawaay discrétion. Mhm. taxawaay boo xam ne bëgguñu woon tamit appuyer li xam ne moom mooy li nit ñi Mm-hmm. boo xoolee dans toutes les émissions dañoo garder le silence. Mm-hmm. te man dama adapté wu ci loolu parce que dama ne nit ki euh, euh, feebar nit ki euh, feebar la rek jarul nga ci nga ci benn yoon nit ñi yëg nañ ko mais amul problème mais lii la yàlla bind lii la yàlla wax ne Kouthia il faut feebaram nit ñi di ci wax dama koy nangu. Mm-hmm. damay sant yàlla même bu doon ne Kouthia il est dans le coma Kouthia a contaminé tout le Sénégal dama koy nangu. mais yàlla xam na ndax man dama kontaan ni war a kontaan wu ma damay nangu TFM nag euh, salut jërëjëf. Mm-hmm. le patron bi woo na ma le directeur woo na ma le le directeur le directeur woo ma et euh, ñi ci topp ñëpp nag yeneen yëpp woo nañ ma euh, daal di may defal ma kontaan ci loolu tamit taxawaay bi rafet na trop waaye tamit discrétion rafet na trop waaye lu am daal vraiment ñoom seetaan nañu. léegi a euh, par rapport ak aussi dégg dégg naa dafa am euh, ñu dégg de cas décès dafa am ñi naan Kouthia la du Kouthia ba nga jot ci ay appel est-ce loolu tam dëgg la. yaa ngi nii wax ak man <laughs> yaa ngi nii di wax ak man. Mhm. kon ça veut dire que ci cas décès décès ku décédé du mhm. xam nga mais yooyu yëpp yooyu dëgg man la. Euh, yokk yooyu ñu doon yokk noonu di bind ay defee daa kaa moo tax nit ñi tiitoon bay egg ci yàlla suñu borom di ma ñaanal mais loolu Hmm. xam nga maa la koy wax léegi nee naa la bu ko gars yi banalisé woon nii. Hmm. na du mu am accès ci yenn prières yi. Hmm. mais niñ ko médiatiser gravé ko noonu moo tax sénégalais yi tiit te moo tax ma xam sénégalais yi fan nañ toll ci man loolu af cant la. sant yàlla sant yàlla sant yàlla sant Seydina Mohamed sant tous les hommes saints. église bi. monseigneur cardinal Théodore Adrien Sarr. Mm-hmm. tous les marabouts yi nekk Sénégal ñëpp ma woo toutes les familles religieuses ñëpp ma woo. Mm-hmm. sama papa sëñ Mbaye Sy Mansour yëkkati na téléphone am woo ma directement. ndax mm-hmm. xalifa général day Tidiane woo na ma directement on a parlé plus de dix huit minutes. waaw am tamit sama beneen xarit Serigne Fall Mbacké docteur. moom tamit il veille à moi mënu ma di bàyyi mais dama la bëgg a xamal ne. chrétien musulman athée. Sénégalais lambda taalibe xale bu ndaw def nañ ma benn vocal boo xam ne benn xale bu ndaw boo xam ne dafa ne papa day defal Kouthia dafa seetal papa yàlla na Kouthia tane dina tane de. Mhm. xale bu am quatre ans cinq ans. waa ki nga xam ne da doon dindi stress docteur Sénégalais yi de dix-huit heures à dix-neuf heures kii faj Sénégalais yi bu feebaree ñu bëri dinañ am na leen jaaxal moo tax yàlla dellusiwaat na ma damay sant yàlla. d'accord léegi euh, nan ngay sensibiliser sénégalais yi par rapport ak maladie bi yow jaar nga ci xam nga li ci nekk euh, lan ngay wax sénégalais yi par rapport ak corona. non loolu moom dama ci bañ a dugg de trop. Mhm. Euh, peut-être dinañ ko gën a yaatal ci beneen waxtaan. Mhm. mais li amoon solo tey Khady mooy mooy lii bu ma ko génn lu mhm. ne maa ngi dem sama kër maa ngi sant yàlla maa ngi nii di ñibbi. yaa ngi ma jël en interview en cause loolu. maa ngi nii di ñibbi di sant yàlla. Mhm. yàlla moom moo ko tegoon bu ko yàlla teg ki mën la natt la sëñ bi dafa am Bassirou Mbacké xarit général pour murid yàlla fi yàgg te wér wax na benn wax bu mhm. dafa wàcce virus bi jox ko ay ndigal moom fu mu war a jaar. Mhm. dañ ci war a jàngat. jàngat bi mooy lan la. tey bala amul te tey àdduna baa ngi dox. bis amul dara àdduna baa ngi dox. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. concert amul àdduna baa ngi dox caaxaan amul àdduna baa ngi dox kon ñun mun nañu dund sans mbir yooyu. Mm-hmm. kon yàlla daf ñuy yónni pour ñu am delluwaat suñ xel ci yàlla. man de ma ci jàngat mooy retour vers Dieu et sécurité devant Dieu sëggatu delluwaat suñu borom. c'est da nga da nga da nga nekk caay caay de. wala da nga dem def yu bon de déedéet. yàlla day tànn ay nitam waaw pourquoi yàlla tànn Kouthia. Kouthia est populaire. pourquoi mu teg ko feebar bi parce que pour ñu woon ne li dal Kouthia mën naa dal Sénégalais lambda. Mhm. man dama ne ci xat la yàlla dama ci tànn dem naa ko xeex ko ba mu jeex. Mhm. wallahi wallahi xeex naa ko ba mu jeex tàkk def naa ci sama doole mooy joxe naa sama loxo piqûre nañ ma def nañ ma ay prélèvement lu ne def ni ma ko man génn ci jàmbaarte kon man dama demoon ci xar sant yàlla ak ndax yàlla moo may yebal ci ñi nga xam ne dañuy war a fës ci xeex bi pour nga xam ne ne am na mhm. yàlla dama boole ci ñi di natt pour Sénégalais yi ne ah comme que feebar bi bàyyil Kouthia mais Khady Faye comme depuis kañ laa commencé xeex corona mhm, depuis début bi dama depuis début bi sama actualité sama sama sama sama sama sama thème yëpp dama ko actualisé ci corona di mm. xeex man ko dinañ la daan mm. yow corona yaa ñu lakkal <laughs> sama benn waaye dama woo la ma ñëw corona daan na la yaa doon wax corona ni ñu koy def ba daan mm-hmm. mais daan na la ma ne ko waa ba tey xeex la mm-hmm. ma jël tous les hommes politiciens lancé la wala ñu def message ba Malick Youssou ñëpp laa imité pour ñu wax ci corona bi mm-hmm. waaw fekk comme loolu la rek kon man tey di xeex corona ba corona xeex ma daan ma ma jóg man tamit jàkkaarloo xeex ko daan ko na man maa ko daan lu tax ma daan ko bàyyi génnaan naa maa ngi sant yàlla. d' accord léegi à quand la prochaine sortie vidéo de Kouthia loolu la ñëpp de xaar. léegi euh, euh, léegi comme que dama nekk nii di soog a génn xam nga yow li may wax loolu sax dafa bëri mhm. <laughs> yow sama xarit nga te yow euh, sama xarit taw boobu mhm. léegi dégguma la. Mhm. léegi wax dëgg yàlla li may def moom mooy jox Sénégalais yi su peu de boo xam ne dinaa génn. def benn point de presse bu gën yaatu. Mhm. xam nga li xam internet la. Mhm. te sama yi nga xam ne amuñu whatsapp ak euh, fan si Koudia bi nga xam ne dafa nekk mbadaxum te amul whatsapp. Mhm. te mënul dugg ci euh, réseaux sociaux yi defee point de presse boo xam ne dañ koy def euh, ba Sénégal ñëpp jox ko ñu jox yi laaj ñëpp jot ci wax dëgg yàlla dina gën a mën a yaatu moo tax incha allah damay noppal ko fan yii rek après génn benn benn benn point de presse nag pour ci li nga xam ne moom mooy coronavirus ak position bi nga xam ne ci laa nekkoon. d' accord merci beaucoup ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi leen di remercier bu baax une fois encore di wax ne damay sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin je remercie tous les sénégalais tous les sénégalais et aussi les journalistes qui les journalistes yi nga xam ne. site mhm. internet nga xam ne. Mhm. dañoo teeyoon ci mbir mi. Mm-hmm. reprendre ñu yenn wax yoo xam ne duñ ko waxee peut être dañu tôt ou tard ku caabu génne ñoom dinañ rus di jàkkaarloog man. Mm-hmm. waaye nag waaye nag yàlla moo dogaloon loolu pour affaire bi mën a am ampleur bi jërëjëf Khady Faye yal na yàlla defal jàmm. jërëjëf merci beaucoup Kouthia.